لي سكينة بكل الجنة من داري imam Mohamed Maji mu bàyyi ko ci réewum États-Unis ak délégation mu ñëw doon ziyaare xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir di ziar boo xam ne mi ngi ko amal ginnaaw bu mu bàyyi ko Tiwaawoon demoon fa nag doon nemmeeku dëkk ba ci wàccaayu gàmm gile daje fa yenn kilifa yi. mu ñëw nag fii ci Touba Mbacke ànd ak ñenn ci njabootu Seydi Hadji Malick gi ñu mën caa jàpp Serigne Abdoul Hamid Sy Serigne Sidi Ahmed si ak sëriñ Abdoul Aziz Dieng. délégation bi bi ñu agsee ci Touba Mbacke Serigne Abo Mbacke moom Serigne Mountakha Mbacke Bachir moom moo leen accueillir ànd ci ceeg Serigne Mourtada Bousso ak Serigne Ahmed Saloum Dieng. moom imam Mouhed Maji bi mu agsee nag ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Bachir ginnaaw bu mu ko dalalee moom sëriñ bi waxtaan ak moom am na ay téere yoo xamante nii sëriñ bi jébbal na ko ko muy téere yu am solo lool ñu mën caa jàpp irwaaxu Nadim ak Minanul Baaxil Xadim li nga xam ne nag Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides def na ko moom imam bi nga xam ne dafa bàyyi ko ci réew États-Unis nekk lool rafetlu na ko lool. bismillaahi rahmaani rahiim ñoo am mbégte bu baax nekk fii tey ci kër Serigne Touba. ci ndigalul ki nga xam ne moo ko fi nekkal tey di Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla gën koo dëgëral ca gën ñu koo bàyyee lu yàgg-yàgg tey sëñ bi xam ngeen ne dafa am gan ñu fonk lool gan ñi nag euh, euh, ki ci jiitu mooy imam Majid mii nga xam ne sëñ Ahmad Salim dana wax dëgg-dëgg mooy kan euh, ak ànd ak ay ñoo ne ci ay njabootam lañ di ay doomam sëñ Abdou Hamid si moom sëñ Abdoul Aziz si Al Amin ak Sidi si ak mbokk yu tedd yi nga xam ne ñoom la àndal sëñ Ahmad dina ci ñëw ñun nag li nga xam ne moo ci nekkoon suñu wargar sëriñ bi dafa wax doomam ji di sëñ Chouaïbou bu Mbàkke mi nga xam ne mooy ki nga xam ne moo koy jàppale ci lu bari waaye nag surtout ci li aju ci gan ñëpp yi nga xam ne ñoo jóge bitim réew na leen teertu dalal leen fii nga xam ne mooy ci kër gi fexe ba seen ziar bi leen tax a jóg ngir yàggal yàlla ak lislaam rek yàlla boole ko loolu mooy li nga xamante ni moo leen tax a jóg euh, bi nga xamante ni ñëw nañ nag alhamdulilah comme ni ñu ko waxee ànd koog sëñ Chouaïbou mi gàttandu ju leen andi leen euh, gis nañ sëñ bi léegi gis boo xamante ni gis bu leer la sëñ bi nag comme jëf ju mel ni jëf ju baax la bu sañu nit nit ñi xam ko bu baax a baax ndax mën a roy ci lii ndax lii luy dundalu bokk la luy dundal bokkook lislaam gi la luy dundal taxawaayu liggéey bi nga xam ne moom ci la nekk ca waxal ko boppam léegi mu tasaare xam kon loolu moo waral suñ daje bi fii tey muy suñ gan gu tedd nga xam ne moom lañu àndal imam Majid ca jóge ba Amérique ànd ak nag doom yu tedd yi nga xam ne ñoom moom a ànd ak délégation bu mag bi sëñ bi nag joxoon ñu ndigal maag sëñ Chouaïbou bu Mbàkke mii di doomam ñu gàttandu leen tatagal leen bu baax a baax teral leen ndax fii seen kër la loolu la ko jàpp mooy seen kër gi nga xam ne fi dëkk maa ngi jox sëñ Ahmad Salim nag mu xamale la ñu ci gan gan gi bu baax baax bu noppee ñu doo ko jox gan gi mu joxe kàddoom ñu tekkil ko ko incha allah bismillahi rahmaani rahim comme ni ko Cheikh Mouhamadou Mourtada waxee rek euh, xam ngeen imam Mazir moom soppee Touba la xar Touba la ndax ñeenti at ci ginnaaw invité woon na ci seen congrès annuel bi ñuy def ci Amérique moom moo jiite woon euh, Union des musulmans de l'Amérique du Nord invité woon na sëñ Sidil Muxtaar rahimahullah sëñ Sidil Muxtaar yebal ma man mii ma ànd ak Cheikh Baara Matilay ànd ak sëñ Abdou Aziz Si Majalis dem teewal ko fa mu def ay seede yu rafet rafet ca ca Amérique euh, ren suñu mbokk yi nekk ci waawoon doon def benn colloque international wala sous régional ci wàllu jàmm ak dimbalante ak stabilité moom mii mu jàppalante ak ñoom ba loolu taxaw mu ne nag du dugg Sénégal ba génn te ñëwul ci bërëb bi nga xam ne ay soppe ma fi nekk ak ay xaritam euh, ànd ak sëñ Seydi Ahmed ak sëñ Abdoul Hamid euh, ñoom it xam nga ñu xam ne fii seen kër la moo tax ñu ne ko dañuy gunge suñu waajur sëñ wax na leen ko léegi bi ci biir mi ngi ànd ak docteur Omrana Omrana mooy loxo ndey ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci wàllu àdduna ndax waxuma kuréel bi mu jiite ci Amérique waaye dafa bokk ci ay organisation internationale yoo xam ne yëngatu ci wàllu jàmm ak euh, gën a dëgëral tasawuf ak sàmm ko ak euh, lépp loo xam ne dafay woote ci non violence euh, ànd ak sëñ Abdou Aziz Dieng mi nga xam ni euh, mooy bëtam di loxoom fii ci Sénégal bërki démb ndaje moom mooy wax ci Tivaouane sëñ Abou Chouaïb Kébé mi ñëw na sëñ Abou Chouaïb Mbacké ibn Cheikh Mahamadou Mountakha ñëw na fa def intervention bu am solo ci turu sëriñ bi bi mu paree ñëpp rafetlu nañ ko imam bi wax na ko léegi sëñ Mountakha nee na ko bi sëñ Abou waxee rek saal ba ñëpp bëgg nañ te xam ñu jàng ne te xam ne muy wax kon nag ñoom ñooy délégation bi euh, day jox imaam Maaji rek mu sànni ay kàddu euh, ndax tey ji la war a dem waxtu bi xat ci moom lool waaye mooy lu mu xat-xat naa jaar Tuuba ziyaare saafonteeg sëriñ bi jaale ko barkeel ko waaye waxtaan ak moom ci université bi nga xam ni mi ngi koy waaj taxawal te ñoom ñu fas yéene ci dugal si loxo incha allahu taala bismillah rasulillah alhamdulilah saidna bi euh, wujudina fi Tuuba هذه المدينة الفاضلة وجئنا من مدينة الفاضلة الأخرى من تواون وجمعنا بين الحسنيين من مكان إلى مكان في صحبة الأفضال والأخيار بأبناء المشايخ بالشيخ عبد الحميد والسيد أحمد في زيارة هذا المكان المبارك وبصحبة الدكتور عمرانة وأخونا عبد العزيز وتفضلنا يعني تفضل علينا الشيخ بإعطائنا وقت لزيارته ونحن نبارك له الخلافة لأننا لم نسعد بلقائه بعد أن أصبح خليفة ونعزي أهل هذه المدينة الفاضلة في الخليفة السابق الذي تشرفنا بزيارته المرة الماضية في المقل ونحن نقول أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه المدينة مدينة التي تقوم على العلم والمعرفة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلها ونجعل مولانا سيد الخديم دائما نموذجا يحتذى به في إخبار الناس بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولقب بخادم الرسول ونسأل الله سبحانه يجعلنا جميعا في خدمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم kon ni ko imam Majid doon waxee ci làkku arab dafa tàmbali wax ne am na mbégte lool ci dikk ci dëkk bii di Touba waaye nag mbégte mi gën naa yokk ba nga xamee ne dafa dikk ci dëkk Touba bii nga xam ne dëkk bu sell la waaye mu jógewaat nag ci beneen dëkk bu sell bu mel ne moom muy Tiwaawan mu ne loolu am na ci mbégte lool nee na tamit am na mbégte ci ànd ak mbokkam yi ak xaritam bi ak loxom ndeyjoor bii du docteur Amran ànd ak ñoom ak Cheikh Abdoul Hamid ak Cheikh Sidi Ahmad nga xam ne eh, ay ñaari xaritam lañ Euh, di suñu di suñuy mbokk di suñuy mag ànd ak moom ñëw euh, euh, ziyaara sëriñ bi saafonteeg moom waaye nag nee na am na mbégte tamit ci ñëw gi fekk fi Cheikh Mouhamadul Mountakha ndaxte daanoon na ko gis daana ñëw Touba di ko di dajeek moom di ko ziyaara waaye bi ko suñ borom joxee yan bi ak léegi mu yanu ko mu yanub Cheikhul Khadim bi mu ngi doog a ñëw nee na ñëw googu nag am na ci mbégte ndaxte may na ko mu mën koo sargal Euh, ci loolu tatagal ko waaye ñaanal ko tamit ba suñ boroom sàmm ko te defal ko tamit liggéey bi nga xam ne moom la sumb ci yoon wi mu àggale ko ci anam nga gën a rafet kon daal yaakaar naa ci ab gàttal ngir bañ a guddal yaakaar naa wax ji loolu la làmboo waaw euh, euh, jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa bi sadinatan janna min daari minan yaatal minna